si jëmmi bopp mënut a gañal président Macky Sall ñun ñëpp ñooy maase ànd kenn ku nekk jàpp kenn ku nekk indi la nga man complété sa morom su boobaa victoire bi dana yomb te mi ngi suñu kanam loolu moo tax ñu ne kat nañu wut loo xam ne day mandargaal suñu ànd googu yi ñu wut barab bi jagleel leen ko yéen ñëpp man mi ko wut ak ki gën a ndaw ci parti bi ak ki gën ndaw ci mouvance présidentielle bi bis ni ki tey ñoo ci yem képp koo xam ne bëgg ngaa def sa réunion képp koo xam ne yittewoo nga ko bu la neex nga ñëw tijji def fi li nga fiy def boo noppee dem te wax nañ ko gën na dëkk bi kon warmaal nañ li nga xam ne mooy déglu sëriñ bi warmaal nañ li nga xam ne mooy suufu Tuubaa si ñëw fii ñu def ko fi kon yéen ñëpp ngeen xam ne yéen ko moom yéen ñëpp ngeen xam ne ñoo ko bokk kenn ku nekk ñu dafa am responsabilité jóg faire face à cette opposition subversive pour jox président de la république li nga xam ne majorité pour que réew mi am stabilité bi nga xam ne moom la war a am kon loolu moo sabab tey jii ñun ñu war a takku jàppale président ba majorité boobu nga xam ne moom la bëgg sunu borom jox ko ko te amuñ ci loo xam ne moom la ñuy au soir du 31 juillet incha a am majorité à l'Assemblée nationale mais en majorité te Touba day am lu ñi nga dans le département Vous mi ngi sama ginaaw pour le monde rural bari nañ Touba fi ëpp ñun ñëpp ñu def bloc cette année ci chance pour gagner les élections ko am parce qu'en face, il y a rien du tout

pour contribuer ci majorité bi nga xamante ne bii benn bokk yaakaar nar na ko am au niveau de l' assemblée nationale. ñun ñi nga xam ne ñoo ko fiy jàppale ñoo war a jóg dugg ci askan bi dugg ci ruq yi dugg ci ruqaan yi wax ak nit ñi dem ci sancaan yi. dem ci mm. barab yi gën a xam ne moo gën a sori dugg ci mondi rural bi wax ak ñoom ñu xam taxawaay bi nga xamante ne bii kii di président la am na ko fi. ak importance bi nga xam ne élection yi am na ko fi ak ñenn ñi li nga xam ne moom nañ mébét ci réew mi tëmb ci lenn loo xam ne suñu jàmmal wala suñu wala jàmmi réew mi la loolu dañ ko war a leeral askan wi ñu xam ko ba kenn ku nekk buñ ci àggee ñu jël say responsabilité def li nga xam ne mooy li gën ci yow ci sa wàllu bopp def li nga xam ne mooy li gën ci réew mi def li nga xam ne mooy li dëpp ak li nga xamante ne bii mooy li nga xam ne mooy li kilifa yi bëgg loolu moo tax ba ñun ñëpp ñu maase àndandoo nekk benn wax nañ fi ay problèmes yu bari yoo xam ne c'est des problèmes technique lu ay ci wàllu représentant dans les bureaux de vote liñ ci wax dëgg la dund nañ ko dundati ko dundati ko mais foog naa ne loolu jeex na takk du fi am ndax mesures yi nga xam ne war nañ ko ci jël danañu ànd waxtaane ko jël ko wax nañ fi li nga xam ne moo ci problème zone yi

indi ba à partir d'aujourd'hui pré campagne bi commencé tous les après midi inshallah allah dinaa ñëw fii képp ku ma soxla nga fekk ma fi ku ñu ñu la ku ñu dem ci kilifa diine yi dem ci imam yi dem ci daara yi dem ci association yi dem ci regroupement socio professionnel yi wax ak caravane ak ndaje yu xumb yi ak kafe yi def porte à porte dem ci nit ñi aw ci seen urmbal yi toog ci seen lal yi wax ak ñoom fii képp koo toog ci biir képp koo dugg këram toog ci ab lalam wax ak moom boo génnee parce que ay nit kersa lañ ay nit ñu baax lañ kenn du la ci war waaye nag bu la dee seen nii rek loolu dafay des kon il faut ñu changer démarche xam ne noonu te am nañu temps pour def ko loolu bu soobee yàlla moom lañ mooy li nga xam ne moom lañ fas yéene def la ko topp rek mooy ñu continuer waxtaan wi li ci aju itam ci wàllu wax nañ ci ay wàllu formation moo xam formation mandataire la moo xam formation représentant bureau de la ñi nga xam ne aussi mooy zone yi daanañu seet naka lañu accompagner zone bu nekk ba déjà pré campagne bi ñoom itam ñu mën ci yëngutu nekk ci di liggéey ba bu ñu àggee ca campagne ba fekk l' essentiel du travail aura été fait parce que biir campagne coole day bari wax ji day bari kon daal li nga xam ne mooy li mooy li nga xam ne mooy li am solo mooy ñun ñëpp ñu tirer dans le même sens ñun ñëpp ñu ànd ak unité ñun ñëpp ñu am kersa ci kii di président Macky Sall kon war nañu ruus ëllëg di jàkkaarloo ak moom li nga xam ne moom lay sàkk wax na ko nee na ay xob rek la dañ ko bañi rek war nañu rus loolu ñun ñu ñàkk ko ko mën a jox kon foog naa ne bu ñu lamboo loolu am kersa googu ci moom góor góorgóorlu kenn ku nekk def ci sa kemt lay kattan kenn ku ne def ci loo man ak loo mënut bu ñu yàlla dimbalee yàlla mën nañu jox ndam te aussi moytu cool yi te xëy nag ba mu bañ yàqu loolu bu amee rek bu soobee yàlla li ñu bëgg danañu ko am man daal maa ngi leen sant yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax seen taxawaay rafet na man lii mooy li nga xam ne mooy li ma war ci mooy li ma war ci yéen. te de liste bi euh, yónnee na. bii moom bii moom mu woo boppam téléphone ne ma suba dinaa ñëw man moom moo ko moom woo téléphone ne ma suba dinaa dikk tey ji aussi yónnee na foog naa Ibra Sall mi ngi fii ci ginnaaw d'ailleurs ak anamu voilà Ibra mi ngi nii d'ailleurs moom mujj wax ci place boobu bi mu amoon parce que dañuy wax ne ndaw bu dikkee daraje ka ko yónni moom la yor moo tax Ibra ñu jox ko jóge daraja même si ci beneen zone la bokk donc yónnee na neen dafa ma ngant ngant loolu dañ koy nangul mais pour ni nga xam bi ne bii ñoo séq liggéey bi foog naa soxna Mariam mi fi anam ndax dem na on a tenu deux réunions ñu ngi gisee ñu ngi waxtaan ñu ngi tëral suñu stratégie soobee yàlla léegi ngeen gis ñu ñu gën ensemble sillonner tout le département sillonner la ville pour que li ñu bëgg suñu borom jox ñu ko nga xam dal ñi ngi liggéey ensemble et que nous travaillons la main dans la main loolu maa ngi wax démb rek dem rek gisante nañu waxtaan nañu ñun ñëpp